waxtu ci première chaîne de télé privée bu Sénégal yem ak waxtu xibaar yi nees gis ñu dikk ak yéen ci li ci gën a fës. bokk ci li gën a fës ci xibaar yi jullik tabaski atum 2020 ñu màggal ko ci àdduna waxngal képp rawatina file ci Sénégal jullit yi daal di amal lu ni mel nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di imaam yi jamonoy coronavirus seen xutba ñu jagleel ko wàllu woowe wax ni naka faw ñu dëppoo ak lu euh, kër docteur daal tëral ci wàll wi. mi ngoog euh, mbokk yi benn ponk la ni ngeen koo xamee jullik tey gi nga xamante ne nag moom euh, la ñu euh, nekk di jullik tabaski ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci diineg lislaam ñëpp daal di koy màggal rawatina ci réewum Sénégal file ci Ndakaaru nag julli gi daal nañu koy amal ci bërëb yu ci bëri yu ci mel ni ca Yoff waaye itam ca ji naan askan wi daal de wuyu ji ngir nag def la nga xamante ne moom la ñuy defaat bu jot waaye nag ca ba ñuy xutba imaam yi ñu tënku ci jamonoy coronavirus ngir nag ñaax askan wi ñu gën a woyal nag li nga xamante ne moom moo di ñaan gi ngir mbas mi daal di jóge ci réew mi julli gi sax daal nañu koy amal ci anam yi nga xam ne dëppoo na ak sàkkute fukk ñi fare ci kër docteur leeral yi dañu ci ànd ak Babacar Tambédou communauté Layène nag daal di nañuy amal li nga xamante ne nii moo di ay Aïdel Kabir waaye nag daal di xamle rek situation exceptionnelle mesure exceptionnelle ndax gileeg julli yi nga xamante ne nii nag mam Libasse laax daal di na koy jiite ñun ko amandeel si ab façon bu nga xamante ne nii rek dañ daal di dëppoo ak mesure barrière yi nga xamante ne nii daal nañ koy tegandi image yi lii di ko firndeel moom nag ci biir xutbam Mame laax yi di fàttali rek jullit yi li nga xamante ne nii mooy solo solos julli rawatina bu am mbas daal di amee kilifa diit bi daal di xam ne rek ne jullit yi gën a way gën a sax ci julli waaye itam ci jéggalu suñu boroom kon moom jàpp nii lu nu mel rek moo ñu mën a génnee ci mbas mi di Covid 19. ci kaw loolu nag maam Libaas yi di wax na ni rek bàyyeeku gi nga xamante ne nii askan wi defoon nañ ko ci feebar bile nekk na lu nga xamante ne nii nañ ci daal di taxawaat ndax moom dafa jàpp mooy ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy defandi ku si nekk rek dafa war a amal ab taxawaay bu mucc ayib waaye fu sorowul dara ci boobule barab di kolobaan fi nga xamante ne ni nag mooy moskee Masaalikul Jinaan foofu itam daat nañ fay amal ñaari ràkka yu ñeel wàllum tabaski bile moom nag ci biir xutbam imam bi di fàttaliwaat rek li nga xamante ne nii mooy diineel islaam na ci askan wi daal di tënku rawatina ak njub waaye itam ñu yokk seen gëm naka noone daal di nay àddu itam lu ñeel wàllum coronavirus moom lu muy xam ne rek ñu gën a ñaan ngir ñu génne ci mbas mile mu mel ni nag bu weesoo ñaari jàkk yi nga xamante ne ni bokk na ci yi gën a mag ci capital bile yeneen i jàkk itam daal nañuy màggal bile bés waaye foofu la ci grande mosquée bu ndakaaru nag fi nga xamante ne ni fa la njiitu réew mi doon amalee ñaari rakka tabaski yile lu nu mel nag amee fa tabaski 2020 gile njiitu réew mi daal di julee ca këram gi Mermoz ndax jumaa jile rek dañ ko tëjandi coronavirus moo fa daal di jaar Babacar Tombédou mbir mu ni mel sax ak tëj-tëj yenn ci bërëbub euh, jullikaay waral ba euh, ki nga xam ne moom moo di Seydina Mañoon Laay di euh, doom ci xalif général des Layènes daal di ci àddu la mu xamle nag mooy jot na ñu daal di ubbi bépp bërëb bu nga xam ne dañu fay jaamoo yàlla ndax mbir mu ni mel képp ak ñaan ya ñuy amal mooy waral kon lii di mbas mi daal di jóge ci réew mi mi ngi yëkkati yooyu lépp kàddu ginnaaw ñaari rakk tabaski ba ñu doon amal foofee ca Yoff Layène ñu teewlu kàddu yamu ca yëkkati wax naa ne que ni jàkk yi ñu tijji tëj yëpp war nañ leen mën a tijji ndax euh, grande lu mel ni grande mosquée comme ni nga ko waxee eh, eh, juma euh, ñëpp jullit yëpp la du pour ma sàmb du pour ma demb du pour bi tarixa wala du pour bële kon waroon nañu mën a ubbi war mën julli te it gëm naa ni que ni suñu ubbi woon julli ñaan ñu ñu fay ñaan yàlla dina ko dina ko dégg damay wax ni que ni euh, Sénégal chance bi ñu am mooy li nga xam ne yàlla dëxëñ na ko fi ci ñu baax ci ay kilifa yu baax kenn ku ci nekk nga xam te ni que tey jii mënoon nga ni bu doon yonent bi xaj na man lay doon kon ñooñu seen allahuma xajul ci mbas mi. kon nag suñu fekkoon ni que ñoom ñëpp dañu ànd di ñaanandoo am naa yaakaar ni lii du du du waaye wala du metti maam di baax na wax na ko yàlla dina la dina nangu sañaan ñaan dencal la ko wala mu fay la ko leneen moo tax ma ni ñi ubbiwul woon war nañu mën a ubbi war a mën a xool nuñ ko nuñ koy organiser comme ni ñu ko defee fii. Mm. waaw wax na ko sànq euh, nee na gis na ni que ni am na relâchement gis na ni que ni nit ñi dafa mel ni dañu xaw a bàyyeeku loolu moo tax muy muy ñaax àddina bi yëpp pour que nu xam ni que ni lii lu yàlla wàcc la balaa bu yàlla wàcce la kon faw nu gëm ko faw it nu jox ko euh, axam jox ko gëddëm di ci ñaan yàlla yàlla teg ko jàmm waaye daal jàpp leen ni que ni que ni ñaan moom. moom mooy socle bi moom mooy kuma mooy mooy début bi mooy fin bi aussi. wax naa ne que. julli gi màggal nañu ko mbokk yi fële ca diwaanub ndax géej ca imaamub grande mosquée bu ndar naka daal di yëkkati kàddu ginnaaw ba mu noppee ca julli ga xam le ne nag bépp doomu ndar bu nga xam ne yàlla ubbi na say buntu wërsëg ba nga am war nga fàttaliku askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca diwaan ba ngir nag daal di fay amal yenn ci investissement ngir ndar géej mën a suqaliku ci jamonoy crise sanitaire dal di nay sàkku itam ci askan wi ñu moytandiku bu baax a baax te dëppoo ak tegtal yi nga xam ne moom moo tukkee ci kër docteur reportage bi dañu ci ànd ak Moussa Ousmane Diagne ak Abdou Boye feetu tabaski bi mën na ni julli nañ ko fi nga xamee ni moom moo di ci grande mosquée bu Saint-Louis ñu gis ni nag feetu tabaski bi nga xamee ni dafa wuteeg lool yeneen i at yi nga xamee ni moom lañ ko doon màggal gis na ni nag ki nga xamee ni moom moo di imam ratib taxul te moom ci wàllug li nga xamee ni moo di xutbaam bu waxanteek doomu ndar yi nga xamee ni gis na ni doon yore jikko bu bees boo xam ni aw ameewuñu ko woon surtout nag ñi nga xamee ni moo di kilifa yi mais Saint-Louis tey dafa soppiku kenn xàmmeetu ko boo compté fukki nit xëy na kenn kay nekk Saint-Louisien parce que ñi des yëpp dem nañu te ba ñu demee yàlla jox leen teraanga dellu suunu waatul ko indi ko ndar ku dëkk ci dëkk te doo fa def dara bëgguloo dëkk bi dëkkuloo ci dëkk bi. kon da nga leen woo pour ñu dellu si defar. mais non mais jarul woo. mais am na koo xam ne jarul woo fi nga juddoo fi nga màggee daan fi passé korité daan fi passé tabaski daan fi passé gàmmu daan fi passé sa ay mbokk daan ñëw. mais yow itam tu tu dois passer dans le même sillage kooku tu na pas besoin d'être enseigné enseigné sur ça. kii nag di imam ratib ci li nga xamee ni rek moom moo di jamono mbas mi nga xamee ni moom la ñu toll nii moom nag mu am ay dénkaane yi nga xamee ni moom la jox askan wi. mais de respecter les les mesures barrières les nos autorités sanitaires il faut il faut qu'on les respecte xam nga xam nga réew un peuple sans éducation est un peuple sans âme réew balaa muy taxaw fokk ñu yar ko. waaw yàlla dafa yar yonent yi ba pare sokka nag dama nekk demal nga jàngale ji yar c'est important. ci julli tabaski bi nga xamee ni moom la amal ci grande mosquée bu Saint-Louis gis na ni nag imam ratib moom tamit yëkkati na kàddu jëmale ko nag ci chantier grande mosquée bi nga xamee ni yàgg na lool te mu bare lool retard bi nga xamee ni am na ko ngir mu mën a jeex ci noonu nag muy ñaax nguur gi ngir nag ñu gën cee taxaw bu baax gën a baral seen loxo ci li nga xamee ni moo jëm ci wàllu liggéey bi ngir nag grande mosquée bi gën a yaatu ci jullit yi. ginnaaw nag euh, julli gi nga xamante ni ki ko jiite mooy euh, Serigne Fallou Mbacké euh, bu Abdou bu Serigne Abdou Khadre ginnaaw nag julli googe nga xam ne amal nañu ko fa ba noppi kii di xalif général des Mourides daal dina yëkkati kàddu jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit yi ñu nag faw rek ñooñee daal di gën a dëppoo di jëlale waaye itam di jéggale waaye tamit gën a dëppoo ak tegtal yi nga xamante ne moom la borom bi santaane di tegu ci yoon saay su ne tegu yëpp ñu ànd ci ak kàddu yi nga xam ne yëkkal na ko yëkkati na ko ci moom Serigne Mountakha Mbacké kàddu yi nga xam ne suñu naataango di Pape Saer Mbaye ak Bekay Ndiaye ñoo ko tàttaan. mbokki taalibe ko doon toppee baal na ak ñëpp di ñaanit ñun ñëpp ñu bokk balante àq kon kàddu yi moom jërul guddal góor góorgóorlu bu baax rek ci njub njub mooy buntu lépp lu baax nanu gën a góorgóorlu bu baax waxuma sax nu am diine waxuma it nu bëgg diine waaye li mu wax mooy lu gën a faw ku diine ñu gën a fonk it sunu taalibe jikko yu baax yu tedd yépp ñu makaarimul axlaaq lépp ngi ci biiru taalibe góor góorgóorlu ci ñetti jéego yooyu rek lu ñu gën a suubu ci yow yoon di gën a xam sëriñ bi di gën a mën a dund sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara boroomam ak yonent bi mu ko tegtal euh, jërul ñu di ko guddal mën nañ ko yemale foofu rek di sant ñépp nag ci liñ ci weesu ci doxin wu rafet bi nga xam ne xormay sëriñ bi ak tawfiqam mu nu gàttandu ban mën a jéggi li nu weesu jéggin wu gën a rafet noo ngi koy noo ngi sant suñu borom bu baax mu nu boole sëriñ bi di sant sëriñ bi bu baax muy suñu lépp tey ëllëg di suñu biir du suñu bitti kon jërëjëf jërëjëf di ñaan bu baax a baax suñu borom gën noo gàttandu tawfiq sëriñ Tuubaa nawet bi jiitu ci lan ci wut lépp di ko ci séentu suñu borom gàttal ñu ci ak tawfeex sëriñ bi ñu amee ko nañ ko bëggee wala lu gën a sax kawe suñu njort loolu lépp nag cant gi moom jiitu na te kanam rekk la jëm lu nu mën a bëgg ak lu nu wa mën a xalaat cam diggoom jiitu na ba noppi la ca des yaakaar rekk la ak rafet njort te loolu yaakaar ji mat da sëkk rafet njort gi amul fenn fu mu yem mi ngook mu nekkoon ay kàddu Serigne Mountakha Mbacké xalif euh, général de Mourides ginnaaw julli gi nga xam ne amal nañu ko foofe ca grande mosquée euh, bu Touba mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci ay euh, yeneen yi nga xamante ne nag moom moo jëm ci tabaski gi ginnaaw askan wi ñu ci bëri bu ñu duggee ci biir réew mii ngir jullee fa tabaski gi ni ngeen ko gisee noonu nag lii di mbeddu Ndakaar yu wéet lool waral nag ba ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi sax dañoo tëj seeni boutique ñu néew ñu ya dañu ko yokk bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo ñaaw lu lu ni mel ndax jàpp nañu ni ci bisub julli gi ñii di taxi taximaan yi dañ cee waroon a jàpp bu baax a baax daan ci dikkat ñàkkul ci yeneen jotaayu euh, xibaar ñu woyee ba tey wax ci tabaski gi ak euh, nag saay suñu jullee ba noppi mbalit mi nga xam ne dafay jaaba jonge ci mbeddu ndakaaru yi loolee waral ba UCG daal di jël ay matukaay euh, jël nag euh, lu yemook ñaari junni ci ay fas leen yéene wàcce ci mbedd yi ngir nag ñu amal set setal nañu koy tàmbali sax ni ki démb door ko ci yenn ci daral ak feneen fu nga xam ne dañu fa doon jaayib xar la ñu bëgg nee ñu mooy rek fexe ba mbalit mi nga xam ne saay su ne dañu koy nemmeeku ci bu ñu jullee ba noppi ci yenn ci ay bërëb yu nga xam ne doomu yaadama yi dañu fa doon daje ngir amal fa wàllum jënd ak njaay mbir mu ni mel ñu mën ko moytandiku ñu ànd ci reportage bu Thérèse Samb. muy set setal bi nga xamante ni li ko tax a jóg moo di wàññi mbalit bi ñuy faral di am saay bu tabaski ñëwee ci loolu UCG da lay teg ay matuwaay ngir daal day setal dëkk bi. dañu mettre en place li ñuy li ñuy dàkkantele point de regroupement tabaski point yooyu ay caisse benn ordure la ñu disposé ci région de Dakar. mu nekk ñaar fukk ak juróom ak benn point yoo xam ni sénégalais bu nekk mën nga dem foofu yóbbu fa say déchets yi nga xam ni dafa jóge ci tabaski bi parce que jàpp nañ ni nit ñi waruñu leen bàyyi itam ñu koy jël di ko sànni ci mbedd mi bu weesoo loolu aussi pôlu mbalit yi nga xam ni commencé woon nañ ko teg ci dëkk bi dolli nañ ko dolli nañ ci 200 yoo xam ni dañ ci def sax dañ ko dàkkantale spécial tabaski na 2000 agents rien que si Dakar am na pratiquement 700 agents yoo xam ne dañu leen jël rien que pour journée boobu pour ñu ne ci mbedd mi di balayer ak di collecter pour éviter justement encombrement yi nga xam ni tabaski daan na ko indi. ni mbas mi di lawee UCG daal day teel a jug. set setal bi ñu tàmbalee ko ci bërëb yi nga xamante ni dañ koy jaay xaar. les mêmes opérations aussi dañ koy def ci région yi. parce que souvent dañuy wax ni euh, dañu yaakaar ne Sénégal dakaar rek la yam mais yamul dakaar aussi même dispositif yi c' est vrai que amuñu kees yi parce que kees yi doyul woon ñi ngi am yaakaar année prochaine dinañ ko mën def ci région yi mais dispositif humain boobu ak amélioration circuit de collecte yi dañ koy def partout au Sénégal ci bésu fête yi en particulier ci tabaski bi ci dajale mbalit yi dugal ko ci ci ci ci ci contenant boo xam ni dina nekk contenant bu baax ba pare indi ko euh, ci point yi nga xam ni moom la ñu déggee wax nañ ko ci rajo wax nañ ko ci internet bi wax nañ ko partout na nit ñi daal liñ leen di ñaan mooy ngir yàlla ñu bañ a jël mbalit di ko sànni ci mbedd yi comme ñi ngi def effort. muy digle yu nga xamante ni askan wi daal dina koy déglu ku ci mel ni soxna si daal day ñëw sànni mbalitam. kontaan rek ci liggéey UCG ndax soo gisee parité tabaski bu ma saan jot dañuy ñëw fu ñu neex lañ daan sotti mbalit mais léegi bu ñu gisee kees ñu tegal ñu ko fii yombalal nañu ñu ñëwee dinañ mën a tuur suñu mbalit te am benn problème. les nag UCG daal dinay jël lu tollook ñaari junni agent mu ci woo nag bépp doomu aadama mu daal day ànd ak cet laatal ci diggu ak bu fet bi weesoo itam Thérèse Samb ñu gërëm ko mbokk yi ak seek yéen ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbas mi ni ñu koy amale euh, bés bu jot ak tolluwaayu feebar bi file ci réew mi ñu jàpp ne nag am na benn doomu aadama euh, bu euh, bakkanam rot ginnaaw bi ko feebar bi tëralee lim nga daal di yokk ba ci ñaar téeméer ak juróomi doomu aadama ci bi mbas mi tàmbaleeg léegi ñu nga xam ne loru nañu ci bileb feebar ci aljuma ji nag ginnaaw ay test yu nga xam ne amal nañu ko limub doomu aadama yi amee bileb feebar mi ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci ay cas yu yoo xam ne yokk na uh, ci lim gi ñu jàpp ni kon ña nga xam ne uh, mbir ma lottal na leen seenub lim mi ngi toll uh, ci ñeent fukk ak ñett ña wér ba ñu jàpp ni war nañoo mën a ñibbi ci seen i kër seenub lim mi ngi tollu ci juróom fukk ak benn jamono ji nag kon ñu mën a wàññee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdd ci bërëbu fajukaay yi nekk sous ma seen lim mi ngi ci ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk mi nga ko mbokk yi kàddu yooyu sax moom mooy ndax képp lu jëm ci euh, xibaaru diggu bëccëg gi gërëm leen ci topp gi daal di jaajëfal ñëpp ci jàpp euh, ba mu yemb daal di leen di jox dig daje rek ak rédaction bi ak 20h laata loolu ñu sàkku ci yéen ngeen wéy ak sunu ay programme